gannaaw ba mu rafetloo woote bi njiiti réew mi wootee ngir waxtaan parce que force républicaine mi ngi fàttali ni waxtaan wi du benn yoon won gannaaw say gëm-gëm. tey nag ñu woo leen ngir waxtaan ak yéen ci doxinu jamono liñ ci jàpp nag te mu nekk lu ëpp solo. mooy 3 avril bi ñu ne ëllëg la ñuy euh, feete suñu juróom benn fukki at ak ñett bi Sénégal moomee boppam président Macky Sall son excellence di président Alliance pour la République di président Benno Bokk Yaakaar ci bi muy waxtaan li ko ëppal solo mooy ni dafay woo Sénégal woo ñi mu bokkal langue politique gi woo doomi Sénégal ñu toog waxtaan maanaam ñu tuddee ko dialogue national ñu gis ni bi ñu demee ci bisu korité ñu balonte àq ba pare bi tàkkusaan di jot def na jàkkaarloo ci TFM ak askanu Sénégal niwaat mu ngi tàllal loxoom doomu Sénégal yi mu bokkal langu politique ak sénégalais yi ci ñu toog waxtaan maanaam ñu dialogué Sénégal nag ñaar lañ ko xamee pays de la teranga ak Sénégal pays du dialogue maanaam lépp lu mu sa am ci suñuy maam dañ ko daan toog di waxtaane président de la république ni jàpp na ni fal nañ ko falaat ko mu am majorité assemblée collectivité locale maanaam dëkk dëkkaan yi muy maire yi ak conseil départementaux yi lu ci ëpp ci suñu loxo la nekk ñun ñi ànd ak moom te mu jiite ko mu ne waaye loolu li muy am yëpp nag jot na ñu toog waxtaane réew mi waxtaane avenir réew mi surtout waxtaane li nga xamante ni ci la ñu jëm muy élection présidentielle yi nga xamante ne moo jëm ci kanam bi mu ko waxee ñun task force républicaine te suñu frère biram fay jiite ko ñu jàpp ni dëggal nañu loolu rafetlu nañ ko te ñu ngi encouragé président ci loolu mu def waaye booy xool fi jamono toll Sénégal ñu jóge ci Covid ñu gis ni dëkk yi ñu wër yépp fu nekk njaq laa ngi fay baxe mu xam ni kon loolu même loo am majorité majorité nañ ko def joo mën a gis ci nañ ko waxtaane la jaare moo tax ñun ñu rafetlu xel moomu mu am ñu rafetlu tamit yaa dënn boobu mu yaa dënn ba ubbeeku te bu ko def lu woon it kenn du ko poñe ni ko kaay tey nga def ko donc loolu dafa nekk démarche volontariste circonstance ak condition xëy na puusul pour ñu def ko mais def na ko ci moment bi nga xamante ni dañ koy rafetlu ñu gis ni loolu nag bi ko président di def dafa jëmmal rek wax naa ko léegi li suñu maam yi xamoon maanaam waxtaan maanaam nemmi mais booy set tamit ñun task force républicaine li tax ñu gën ko rafetlu mooy dine bu doon doonte ni président tey rek la ko woote ñu mën a wax mais booy seet dañ ko fal 2012 2013 mu war a def acte 3 de la décentralisation am majorité assemblée nationale waroon na mën a jël texte bi yóbbu ko mais mu ubbi waxtaan ci wàllu décentralisation loolu moo indi acte trois de la décentralisation ñu gis ni def na tamit beneen jéego mooy biñ ci jógee li mu jëloon muy euh, cadre de concertation bi nga xamante ni moom moo doon jiite lépp lu nga xamante ni dafa nekk ci wàllu décentralisation mu jëloon ko dénkoon ko Djibo Leyti Ka te ba mu ko koy dénk fekk na Djibo Leyti Ka bokkul woon ci moom àndul woon ak moom ñu gis ni que ci wàllu euh, ni ko suma camarade Cheikh Bakhoum waxe léegi ci kàllaamay nasaraan yu wér mu ñu gis ni waxtaan na tamit ci wàllu enseignement supérieur maanaam université yi nan lañ ko waroon a doxale mu amoon possibilité parce que moom la ñu fal il faut ñu xam ni que la réalité de l'exercice du pouvoir est entre les mains de ceux qui dorment au maanaam tey ki nga xamante ni moo téye ca gël guy gi mooy ki nga xamante ni moom la ñu fal buy décider mën na bañ a laaj kenn mais gis nañ ci wàllu santé dafa laajte ñu waxtaan wàllu éducation nationale ñu waxtaan ci wàllu dialogue social ñu waxtaan ci waxtaan tamit ci wàllu suuf si ak wàllu administration ubbi cadre de concertation maanaam waxtaan tamit ci wàllu pétrole ak wàllu gaz ñu gis ni kon kenn mënul naatable tey ni ci jëf yu ñu koy teg ci loxo ci mën ko teg en tout cas ci loxo nit Macky Sall nitu dialogue la nitu waxtaan la nitu kuy nemmiku nit ñi kuy déglu ñi ko seqal la ñu jàpp ni bari na lu fi am ci wàllu élection ba yii ñu jóge muy élection législative yi ku ne gis na mode discussion bi ni mu changé woo loolu yëpp waxtaan na ko indi ñu gis ni tamit euh, fal président de conseil départementaux yi ak maire yi au suffrage universelle direct maanaam ñu fal leen directement loolu waxtaan na ko indi woon kon nag kooku bu wootee waxtaan dañuy jàpp ni fàttali dafay baax pour ñu bañ a defee ni jamono moo dab ba nit ñi xamatuñu fu ñu jëm wala président xamatul fu mu jëm mu woote ni nañu nañu dialogué dafa bokk ci mode de gouvernance am te li ñu indi dañuy indi ay exemple yu ko wane ci li ci li weesu kon jàpp naa ni bu ñu tënkee ci li nga xamante ne moo nekk ci kayit gi ñu mën koo euh, wax mooy dina am na ñi nga xamante ni nag nee nañu ñoom duñu wuy si sañ nañ ko te nangul nañ leen ko mais ñi ngi jàpp ni comme woote la nit mën na bañ a wax ni du ma ñëw waaye dem ba ca biir xelam yedd ko mu ñëw waaye ñun daal loxo bi président tàllal jël nañu suñu loxo teg ko ci pour jàppale ko ba waxuma la ñu bari ñëw mais ñëpp ñëw wuy si ko ci loolu task force républicain mi ngi rafetlu parti politique yi nga xamante ne ak syndicat ak ñi nga xamante ni bokk nañ ci société civile te rafetlu euh, euh, woote bi ba nii dinañu dinañu wuy si loolu fit la loolu dayo la loolu loolu daraja la te ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu ñu jàpp ni tamit li gën a war a mën a tax ñu waxtaan mooy dëkk bi nga xamante ni lépp li nga doon soxla ci wàllu gaz ak pétrole da nga ko doon jëli da nga ko doon jëri feneen tey nga am ko ba di ko jaay nekk ci wuuru Afrique li la wér yépp nekk luy luy luy lu tàng jaakaar naa ni bu ci ki ko jiite bu ci wootee ni nañu waxtaan loolu dañ koy dañ koy rafetlu euh, task force républicaine aussi mi ngi rafetlu euh, wuyu ak euh, wax ju rafet ak rafetlu gi nga xamante ni sénégalais yi walla lu ëpp ci sénégalais yi yi ñu dégg ñu wax seen wax mooy Macky Sall li mu woote rafet na li mu woote rëy na te li mu woote lu ñu mën a ànd la muy woote jaloo maanaam nit ñi toog waxtaan task force républicaine daal mi ngi wax ni tey la gën a taxaw pour jëmmal Sénégal bu nekk benn pour jëmmal Sénégalu jàmm pour jëmmal Sénégal bi nga xamante ni lépp lu ñu fiy def wala lu ñu fiy wax day nekk njëriñu askan bi mais task force républicaine tey la gën a taxaw ngir jëmmal ngir dooleel ngir taxaw président de la république Macky Sall nga xamante ni mooy suñu président coalition mooy suñu président de partie loolu mooy li ñu leen bëggoon a tënk ci illa ji tax ñu woo leen pour mën a waxtaan ak yéen ci wàllu dialogue boobu donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, tënk tënk lu ñu bind jafe na waaye góor góorgóorlu nañ ci xëj na ba maanaam ngeen mën a xam li nga xamante ni moo ñu tax a jóg tey asalaamaaleykum wa rahmatullah ba muy def discours à la nation président Sall tàllal na yoxool doomi réew mi yépp ci waxtaan rawatina ku jegi Khalifa Sall xamle na ni lu mu nangu la waaye ñu mel ni Ousmane Sonko ak Aminata Touré gàntal nañ ko